أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على رب السلام تبارك
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا xufira lahu ma taqaddama min zambi mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki julit yi noo ngi ci weeru koor weeru koor nekk shahru taxyiir weer la woo xam ne ab jullit def cee war a soppeeku jullit bu soppeekuwul ci weeru koor dootul soppeeku ba yowmal qiyaamati fa in lam nataxayyar fi ramadan fa mata nataxayyar wa in lam nusli xaalana fi ramadan فهل عصاه ينسله من بعده فالرمضان فرصة ذهبية لمن أراد إصلاح أهل الأحوال فالكل به عيوب والجميع تهيت به الذنوب فتن كقطع الليل المظلم قد أهات بالناس من كل جانب حب الدنيا تغلغل في القلوب فأصاب بها الوهن وأقعدها على طلب المعالي والمتع والشهوات خفت الأبصار وجذبت الأنظار نحو المتع الفاني ووسط هذا الظلام الدامس والسواد mbokk jullit yi sunu soppeekuwul ci weeru koor dootuñu soppeeku sunu mbir su baaxul su yéwénul ci weeru koor dootul baaxati ramadan temps la waxtu la woo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo nu ko jox pour nu mën a changer ñu changer sunuy jikko changer sunu comportement changer sunu melokaan waaye changer sunuy jëf yow mi daawul julli fajar jàkk su weeru koor ñëwee boo changé wul pour di julli fajar jàkk dootoo changé ba yowmal qiyaamati yow mi dul teew waxtu yi juróom ci jàkk tisbaar tàkkusaan timis gee di ko julle ndoog mbooloo mi weeru koor fekk la ci loolu changé wu dootoo changé ba yowmal qiyaamati yow mi doon lekk riba yow mi doon naan sàngara yow mi doon njaaloo yow mi doon yow mi doon su weeru koor ñëwee soppeeku woo dootoo soppeeku ku weeru koor mënalul dara lenn ci kaw suuf mënalul la dara ba yowmal qiyaamati ixwatal iman fal kullu bihi uyub ñun ñëpp am ay sikk sàkk ñun ñëpp am ay manqué manqué ay sikk ay bakkaar yu dul jeex wal jami tuhiitu bihi zunub nun ñëpp ay bakkaar moo nu wër amul kenn ci ñun lu dul da ngaa fees dell ak ay bakkaar ma ne koo xalaat rek sa xel dem ci moom dafa fees dell ak ay bakkaar yàlla subhanahu wa taala moo wax loolu moo ne yéen ñëpp da ngeen fees del del del yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kullu ibni aadama xatta wa xayrul xattaa'ina tawaabuun وقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لو علمتم ذنوبي لرجمتموني بالحجار حتى الموت yonent bi nee na koo gis muy dukkat rek nekk doomu aadama dafa fees dale ki bàkkaar lu dul yàlla yërëm ko suturaal ko ibnu mas'ud kenn la ci ndongo yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi seedeel na ko ne ku bëgg a xam ngëmu ibnu mas'ud na xool montagne uhud ni mu toll yonent bi nee na ñaari tànk ibnu mas'ud moo gën a dëgër ci yàlla montagne uhud ibnu mas'ud moomu moo ne sahaaba yi mu doon àndal su ngeen xamoon samay bàkkaar di ngeen ma dóor ay xeer ba may dee kon keneen ku dul ñoom da ngaa fees del loolu tax yàlla may la weeru koor pour nga changer kullun fal jami tuhitu bihi zunub ñun ñëpp ay bàkkaar ñu wër bàkkaar yoo xam ne fitanun ka qita il leylil muslim bàkkaar yoo xam ne dafa mel ne lëndëm goo xam ne dafa mel ne xaaju guddi digg xaaju guddi ni mu ñuulee noonu la bàkkaar yi wéree sunu kaw fees dell bàkkaar yu peeg ñu bëgg àdduna fees dell sunu biir xol yi bëgg àdduna ba mu duggee ci xol yi mu daal di doyadil pas pas yi nit ñi amatuñu pas pas bu wér ci yàlla koo gis lu ko neex la fas koo gis lu ko neex la fas koo gis lu ko neex la gëm koo gis lu ko neex la bëgg koo gis li bakkanam taaral ci moom diine loolu mooy diineem même bu wuuteeg li yàlla wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom loolu lay jël te ci jamono boobu la nekk jullit yu mënta dëppoo jullit yu mënta d'accord ci seen kàddu boroom ndax ay pas-pas yu yàqu bëgg àdduna xol yoo xam ne dañoo fënëx pas-pas yu yonjox ay bànneex wër ñu guddi ak bëccëg noo ngi nii ci weeru koor jullit yi ba nañuy nekk ay jullit weeru koor ñëw ñépp commencé dem jàkk ci 24 heures bu njëkk bi suñ demee ba wër première semaine deuxième semaine jàkka yi commencé waat tumuranki ilimaan commencé waat wéet fajar ñi daan yeewu ndeysaan di njëkkante nga gis fajar kenn dootul yeewu benn yahud da doon waxtaan ak benn jullit xam ngeen yahud yi dañoo nangu jàkka jooju tudd Palestine masjidul aqsa mu nekk ñetteelu jàkka ci lislaam yi yahud yee ko nangu loolu rek war na leen ne jullit yi dañoo doya di tey ci kaw suuf wallahi bu yonent bi doon dundoog saxaaba yi kenn du nangu benn jàkk ci kaw suuf ndax ñooñu yonent bi moo leen yaroon moo leen defar gis ngeen keroog ba ñu amee kattan dañoo ñëw libéré makkatal mukarram ba ñu tuddee ko fatxu makk tey nag jullit yee yoon jox moo tax partout dans le monde ñu leen di menacer di leen massacrer di leen rey comme ay weñ comme yow mi dugg ci sa néeg daa di jël attaque pompe wala yoo toog sa pompe daa di pompe weñ yi dee nga génn dem noonu la ñuy def jullit yi tey ci kaw suuf parce que dañoo yoon jox dañoo fënax ñu fexe sàppe góor ñi ak jigéen ñi bu mu laalante ñu fexe sàppe góor ñi ak jigéen ñi bu mu laalante mbokk jullit yi yahud boobu daan ne jullit bi dégg naa yéen a ngi préparé pour nangu masjidul aqsa mu ne ko waawaaw bu ñëwul sax tey dina ñëw suba dinañ former suñuy doom danañ former ay nangam yahud bi reetaanu reetaanu kuy moke reetaanu kuy yëj reetaanu kuy sayte reetaan jullit bi jullit bi ne ko looy ree mu ne ndax damaa xam ne li ngay wax ñëwagul mu ne ko kañ lay ñëw mu ne ko bis bu ngeen jullee fajar ni ngeen di jullee ajjuma dina nekk mbokk yi kañ la ñuy julli fajar comme ni ñuy jullee ajjuma kañ la ñuy julli fajar kañ la góor ñi borom kër yeeg xale yeeg jigéen ñi génn ñun ñëpp ñu jubër fajar dem julli ci jàkka ji moom fees ñun ñoom ñu ñibbiwaat kañ lay nekk kañ loolu moo lay won ne pas-pas yee wérul pourtant tey la jàkka yi commencé tumaranke fajar waaye ci jamono yeneen ni ñuy jullee ajjuma koriteeg tabaski noonu lañ daan jullee fajar ku ko weddi demal Madinatul Munawwar nga xool jumaa jooju ndax fajar dana fees wala du fees ku ko weddi laa wax demal nga julli ji Medine fi yonent bi tëdd sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xool ndax jumaa jooju benn sàppe moo fa nekk wala ñaari sàppe wala ñett wala ñeent wala imaam mooy ñëw noddu li xam julli ñibbi parce que jamono yooyu pas-pas yee wéroon yàlla rek moo nekkoon ci xel yi ak xel yi tey nag lépp a soppeeku bànneex yi ñoo dugg ci xol yi génne yàlla ak bëgg àdduna nee na ñu nekk ci biir lëndëm wa sawaad gu ñuul kukk kéeféer gu kenn xamul gu nu wër peeg nu bànneexi bakkan ci jamono yooyu sax nga gis ñu nekk ci weeru koor ay programme télévision yoo xam ne day yàq kooru jullit ñu ñu koy programme fi mu nekk nii seen yi nekk ci télé Sénégal yépp programme bi ñu teg ku ko suivre ba mu jeex tàkk doo am koor xoola heure ndogu commencé na ngeen seet ko tey fekkee damay fen ngeen wax ma ko bu ñu demee tey ba ndogu des cinq minutes yonent alayhi salaatu wasalaam dafa ne woon bu ngeen wooree su ngeen di dog am ngeen waxtu woo xam ne su ngeen ñaanee yàlla nangu lissaaimi daw daawatun yustajaab mata indal fitr ki woor bay dog am na ñaan goo xam ne yàlla du ko delloo buy ñaan yàlla may ko moo tax ñu ne la bu koor jotee boo wooree ba ngoon bu desee waxtu wi cinq minutes ñu dog sept minutes huit minutes concentré wul bàyyi lépp génne lépp ci sa xol ak sa xel jublul sa borom yëkkati ko sa loxo ñaanal ñu indil la tey télévision bu toog di la defal théâtre ngay ree ba ci biir séance bi ca la ñuy dugal nodd bi nga xam ne yow booy dugal tàndarma bi di dog sax yaa ngi ak ay xaqataay ca ngay dogee dama woon démb sama soxna ci facebook bi benn waay bu woor ba ngoon daa di ñëw këram simmeeku sol silet ma sol kilot daa di taal cigarette bi ne allahuma laka sumd wa ala rizqika aftart faghfir lii sama soxna ne waru ci woon ma boole baat bi dama ko jox rek mu ne ma waaw kii de waru ci woon boole baat bu mujj bi faghfir lii ma qaddamtu wa ma axar waru ko ci woon boole xoolal ku war ba ngoon di ndoge cigarette mal unin haula ku yàlla rëbb weesuul nga war ba ngoon di ndoge lu aram xanaa xamu leen kuy lekk lu araam yàlla du nangu sa ñaan inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib yàlla dafa sell set teey wallahi kuy dunde lu araam yàlla du nangu sa jaamu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam saad ibnu abi waqaas dafa ñëw di ko jàmbat ne ko yonent sama yaay day nee na su ma génnul ci lislaam daf may mere du nekk sama mbokk du nekk sama xarit yenent ñaanal ma yàlla yàlla jubal sama yaay yonent bi yëkkati ay loxoom jublu penk loxoom yooyu nga xam ne mosu cee def lu bon dem keroog ba ñu sànnee suuf sa ca Badr gaa yi fattu ñu ñibbi ku nekk naan maa def yonent bi ne maa sànni yàlla ne ko sànni woo wa ma ramayta is ramayt walakin allaha rama sànni woo xam nga mënoo jël dank suuf sànni ko mbooloo ñëpp fatt du yow xam nga ne man la kon kon yow defoo ko moo tax loxoom yi mosu cee def lu bon yonent lëkkal ay loxoom jublu penk daan ne allahumma hadi umma saada yàlla yal na nga jubal yaay saad yàlla yal na nga jubal yaay saad yàlla yal na nga jubal yaay saad saad génn jàkka ji ñëw dajeeg yaayam fekk yaayam jublu penku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah saad daw tourné jotul wax ak yonent bi jotul wax ak yaayam mu daw na yonent bi li nga doon ñaan yàlla defal na ma ko sama yaay dugg na ci lislaam fekk si na ma ah waaye yonent am naa beneen bëgg-bëgg de mu ne ko lan la mu ne ko ñaanal ma ni nga ñaanee yàlla nangu sa ñaan ñaanal ma noonu su ma ñaanee yàlla nangu yaay sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko duma la ko defal yow kenn ñëpp laa koy defal jullit yëpp kooku mooy démocrate bu mag bi duma ko defal Hussein ndax mooy sama sët duma ko defal Hassan ndax sama sët la duma ko defal Fatima ndax maa ko jur duma ko defal Ali ndax sama rakk la déedéet jullit yëpp laa koy defal ya Saad aturidu an takuna mustajaba da'wa qala naam mu ne ko atib mataamaka da ngaa bëgg boo ñaanee yàlla may la mu ne waaw mu ne li ngay lekk na dagan boo wooree ba ngoon góorgóorlu nga ndogee lu ndagan jigéen ñi démb yi bu seen jëkkër daan xëy dañ koy gunge ba ci borom buntu kër gi ne ko ragalal yàlla ci ñun ndax ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara looy indi ci kër gi na dagan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim ixwatal iman yéen sama mbokk julit yi nanu yëg ne ramadan dawun mubarak tudiu bihi nnas tariqatahum wa tahdi subulahum wa tursiduhum ila siratin mustaqim wa tuxrijuhum min alzulumati ila annur walfaizu said man yastaxilu hada alfursa alazim mbokk yi weeru koor lañ nekk mu nekk weer woo xam ne ab jullit daf ko war a def torche wala gëlét bu muy niitoo yoonam weeru koor dafa war a ñëw nekk ci yow torche booy niitee li def ci sa dund mu war laa génn ci lëndëm yi nga nekk war laa jubal ci siraatal mustaqim génne la ci lëndëm yóbbu la ci leer xam ngeen ku texe mooy ku jël weeru koor organiser ko def temps pour génn ci bakkaar pour génn ci lëndëm pour génn ci réer koo koy ki texe ci weeru koor kooku la weeru kooram jëriñ mais ki nga xam ne weeru kooram def ko yokk ay bakkaar lu tax c'est parce que dafa dugg ci ay caaxaan programme caaxaan ay théâtre film dem sorti tëdd ci tefesu géej gi ànd ak xale jigéen yi déglu musique cëppi cëppi nekk ci grand place ngay gis borom kër mu kallaf woor weeru koor amul lu muy def nekk ci keppaaru grand place di yoote di dem yi doxal dox naa fekk ñu ngi toog rey naa la fekk ñoo ngi dund njàq temps yàq sa temps amoo looy def doo dem tafsir quran doo dem déglu ji téere yàlla bi gis nga li tax duñ dem Sénégal seen programme dundu islam moo ci bokkul xoolal weeru koor ba weeru koor la ñuy tafsir Qur'an te tafsir yooyu sax dee ko dégg de di nga dem ci jàkka ji weeru koor gi yëpp 30 jours yi wala 29 jours bés bu nekk imam bi wala ka fay tafsir di tafsir ñaari hizib di njëkkanteeg weer yi mu jeex te tafsir bi doo ci jëriñ lu tax yaa ayuha nnaas ee yéen waa Màkk yaa ayuha allazina amanu ee yéen waa Médine inna allazina kafaru misla abu jahlin inna allazina amanu misla abu bakrin ayna nahnu min kitabillah bu fekkee ku gëm yàlla abu bakar la ku gëmul yàlla abu jahlin la yaa ayyuha annaas yéen waa Makka la ayna ahlu Sénégal 114 saar yàlla wàcce ko pour mu defar sunu dund kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumat ila nuur téere bi laa wàcc ci yéen pour mu génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer ñun téere boobu ñu teg ko sunu ginnaaw ba pare ñu bëgg a dund dund gu neex wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama yàlla nee na képp ku dum mooy sama téere bi doo dund dund gu la neex ci àdduna dund gu karaj ngay dund karaj bi ñu leen ko doon firil mooy nga war ba ngoon war a ndogoo cere fekk yaa ngi xiif yandoo xiif yandoo mar bi nga ndogoo rek ñu talal la paalaatu cere bi sa première kudd ak sa première dank bi nga ko yëgee fekk genn wàll gi cere la genn wàll gi suuf la oh loolu la yàlla wax ne su ngeen bàyyee sama téere bi ngeen dund dund gu mel noonu moom la ñuy dund tey partout dans le monde moom la jullit yi dund parce que li waroon jiitu lañ mu jël saret fas bay jiitu bis bu saret bi nooy jiitu fas bi topp ci ginnaaw problème la ñuy am moom mooy sunu dund tey foog nu delluwaat ak téere yàlla bi moo nuy teg ci siraat al mustaqim moo nuy jubal moo nuy génn ci lëndëm ki texe mooy ki def programme weeru koor daf barnaamij isticmaalu awqaat emploi de temps ci weeru koor su ma xëyee jàkka laay jullee su ma jullee ba pare war naa jàng alquran ñaar war naa jàng benn hisib soo jàngee 30 hisib hisib yëpp ba mu jeex 60 hisib yi nga jàng benn benn benn benn benn benn bu weeru koor gi di jeex nga am kaamil bi benn borom xam-xam mu ne mu def ci lu gën a yomb mu ne boo xëyee boo jullee suba jàngal 4 feuilles tisbaar 4 takkusaan 4 timis 4 soo ko defee noonu bu weeru koor gi di jeex nga jàng téere yàlla bi yépp nga def say azkar sabah wa masa balaa ngay génn kër gi soo génnee programme fi nga jëm fekkee da ngay liggéey nga liggéey suñ nodde nga bàyyi li ngay def dem jàkk mbokk yi bu ñu tàmmee noonu ba weeru koor bu weeru koor gi di jeex xam nga lu ñuy am loolu yàlla waxoon la'allakum tattaqun dañuy am diplôme ragal yàlla weeru koor dafa ñëw nekk école pour ñu war a formé wu diplôme taqwa madrasatu taqwa weeru koor keppaar la garab ki toog ci keppaaru garab gi weer bu koor gi jeexee buñ ko laajee waaw keppaar gi nga toogoon war naa wax fruit bi ci garab gi nu mel waaye war naa wax nit ñi keppaar gi fii xaay bi mais mal asaf gis nga li lay wane nit ñi sax yàlla du nangu seen koor c'est parce que xamuñu lan mooy koor li àddina bi lëndëm yépp yàlla mere jullit ñi day indi weeru koor pour weeru koor lakk seen bàkkaar moo tax mu tudd ramadan ramadan mooy suuf su tàng soo xam ne bu ci dugalee sa baaraam baaraam bi ay yax moo ciy dellusiwaat yàpp bi du dellusiwaat parce que tàngaay bi day ñori yàpp bi loolu mooy ramadan mooy day ñori ay bàkkaar yàlla indil ñu pour ñu baal ñu mais maal asaf da ngay gis ñu woor bañ ne tey la 29 jours nga gis gaa yi bind ay taraak ce soir au ce soir au ce soir au ce soir o ku nekk soirée yi commencé la ilaha illa allah benn borom xam-xam dafa fekk ñu woor ba koor gi jeex tëgg soirée mu ñëw dugg ñu ne ko loo fi wut as subhanallah kilifa gu mel ne yow yiw looy wut fii mu ne damay laaj se dama réer di laaj ñu ne looy laaj mu ne ndax yéen wooroon ngeen yaa ah subhanallah ay booba du tax duñu woor ñun nous sommes musulmans ñun ñëpp woor mu ne waaw alhamdulillah waroon ngeen ñëpp ñëpp mbooloo mi yëpp ne ñun woor nan mu ne ndax yàlla nangu na ko ah ñu ne ah wax dëgg yàlla wóor na nag mu ne bu leen yàlla nangulee ndax nii ngeen koy sante su fekkee nanguwuñu ndax lii war na ñun ñëpp loolu mooy suñu problème dañuy woor ba mu jeex xamuñu ndax yàlla nangu na ko te duñ deltu ginnaaw su ko yàlla nangoo nan lañ koy sante mooy ay soirée paa yi ñooy jox xale jigéen ñu dem léttu ji gis ngeen barki démb soirée bi ngeen dégg Jurbel hmm dem organiser ay xale yu ndaw 13 ans 14 ans 15 ans tey laay dégg léegi léegi laay déglu benn émission ci Walf RFM RFM mooy bi nuroog tës RFM benn xale bu jigéen boo xam ne 23 ans la am ab tubaab ëmbal ko dem yoonam bàyyi koog doom mu ñëw ne wër naa damay wër bàyyi ji sunu dund nii rek lañ ko nar a bàyyee di yàq rek dëkk bi yëpp yàqu programme yu bon télévision programme yu bon mbedd mu bon école bu programme bi bon jullit yëpp ñu daan leen détruire ba kañ ñu dee dajeeg suñu borom ñu fàtte yonent bi waxoon na kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi borom kër gu nekk sàmmkat nga ëllëg yowmal qiyaam góor ak jigéen di nga taxaw ci kanamu yàlla ñu fàtte yaa ayuha nnaas yaa ayuha alladina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ëllëg yow borom kër bu la yàlla poñee nga taxaw ci kanamam mu ne la sa doom yi sa doom bu góor ak bu jigéen bii loo leen yaroon looy wax xanaa xamul leen ne na waa kër gi mer na soxna si mer na ñëpp mer yàlla kontaan moo gën rabia da doon wax laytaka tarda wal anaamu xidaabu yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la ne la waa kër gi mere ne la waa koñ gi mere tëjal sa kër yaral sa njaboot waaye non aduna kanaara lañ nekk aduna kanaara mooy xale yi ñooy jiitu way jur yi topp ci ginnaaw fan lañ jëm boo waxee léegi ñu ne àdduna kanaara la njaboot giy jiitu xale yi to- euh, way jur yi topp ci ñoo xam nga bon nous sommes au monde nangam nous sommes au monde bis boo wàccee bis bu la yàlla wàccee lal bi ñu dugal la ci morgue bi sang la teg la ci jaag ji jullee ñu waaxu ba ci bàmmeel yi gas ba mu xóot ñu dugal la di nga xam ne monde musulman la la yàlla santoon nga dund delloo suñu xel ñu ngi ci weeru koor am nañu temps pour tuub am nañu temps pour yàlla baal ñu am nañu waxtu pour kolawaat ak sunu boroom li ñuy tilim tilim tilim wallahi bu nu paree pour dellu ci yàlla fii ak tàkkusaan yàlla dinañu jéggal bàkkaar yi bu toloon ne vaggu géej yàlla dinañu baal parce que dañuy pare nag pour dellu ci yàlla ya la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamia bàyyiwul dara bu leen découragé bu leen yaakaar ne yàlla dootu leen baal yàlla nee na bàkkaar yëpp laa leen di baal waaye day fekk ngeen pare allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين mbokk jullit yi bi ñu paree xutba bi lu dul ñu sàkk ci mbokk yi ñi def lii ngir jullit ñi jëriñu ñu ñaanal leen yàlla def lii fi misaani xasanaatihim yal na yàlla fay leen yiw àdduna ak àllaaxira lii lan fi am xoolal lii feek mi ngi fi bés bu nekk waxtu yëpp jullit yi di fi dugg di jaamu yàlla tiyaaba yi di fekk ki génne alalam def ko ba dina bi di jeex ba yowmal xiyaam ba suuf si di fi jóge fii jullikaay lay nekk bu mag boon sax ba daanu jullit yi dañ ko defaraat dafa defaraat ko kon ki ko def ñaata tiyaaba ñoo koy fekk yowmal xiyaam lii mooy compte boo xam ne nga dund nga dee tiyaaba yaa ngi ñëw nga dund nga dee yaa ngi am ay tiyaaba mën ngaa am ay bakkaar yu bari sax waaye ay tiyaaba fexe di bëri di bëri ñaata jullit ñoo fi julli si tey juma xoolal ñi julli ñëpp ku nekk sa julli bi nga julli ki tabax jumaa ji am na ci tiyaaba bi te yow sa tiyaaba du wàññeeku. kon yal na yàlla fayal ñi yal na yàlla fay leen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ibadallah qumu ila salatikum yarhamukum allah